c'est-à-dire diir xaaral ma nokk ah xaaral ma rey naaj bi ak benn caayan xaaral ma rey naaj bi ak benn nuit blanche xaaral ma rey naaj bi sama kër gel mais amoo sax possibilité dem sa kër gel oui amoo possibilité bi parce que 9 heures dañuy couvre-feu et cetera et cetera et la prostituée dans la rue elle elle ne travaillera pas caga bi du liggéey te caga yi dañu war a liggéey également <coughs> mais oui mais c'est du tra c'est autorisé état moo leen jox carte. c'est aussi du boulot hein il ne faut pas que soit là à voilà, dire voilà euh, sois sérieux toi aussi non mais mais c'est la mais oui mais boo ñun bu ñu génnee nii wàcc dootoo gis càgg bu taxaw parce que elle travaille c'est un Malal, métier Malal redevient sérieux s'il te plaît non mais je veux dire c'est un métier reconnu par l'État mm. c'est vrai aussi, ok on avance xam nga xam nga peut-être jugement bi ngeen si am c'est peut-être religieux wala confrérie wala diine walla aada et cetera mais dans la réalité des choses ñooñu bu ñu joobee ba pare dañuy fay courant fay ndox jënd ceeb diwlin ak suukar ak meew et cetera et cetera dañuy dundal ay famille booy jiitee réew da ngay jël tous ces aspects en compte aspects yooyu munoo leen munoo leen munoo leen négo munoo leen négliger et ces gosses là qui sont dans les rues ils sont en train de donner un message c'est-à-dire il y a un président de la République qui a dit à haute voix dafa dañu am président bu wax dañu am président bu wax ci kaw na man du ma ragal les jeunes ils entendent le message et ils le perçoivent autrement par exemple bu président taxawee new man du ma ragal la et puis amul la question ki biñ ko laaj amul lenn lu ko mën a sax pousser ba mu ne du ma ragal mais effectivement quanti tu dis que du ma ragal les jeunes ñi toll ci seen diggu ndënd toll ci seen doole ils montrent aussi qu'ils ont de l'énergie et aussi que am na ñi leen fi jiitu bi ñu tollee ci ñoom dañ doon taxaw di bañ c'est-à-dire ils ils perçoivent le truc autrement ils disent mais waa ji xanaa daf ñuy jéem a tegal lii ndax dafa am lu muy waaj donc ñun duñ ko ci bàyyee et puis manifester la nuit c'est quand même assez dangereux mmh. parce que y les agresseurs qui en profit pour braquer ay boutique dajji ay magasin def ay affaire il faut que ñu sécuriser dëkk bi sécuriser dëkk bi en disant effectivement nañu bàyyi gars yi ñu circuler ubbi boîte de yi gars yi jouer nit ñi am xaalis on dit effectivement les mesures barrières lii la ak lii respecter leen ko énergie bi ñuy def ci policiers yi ak gendarme yi pour ñuy veiller au grain mais nañu def cette même énergie bu ñu ubbee saal pour vérifier est-ce que les mesures sont respectées dans les boîtes de nuit et dans les salles de spectacle mm. jàmm na ñooy allez euh,